sallallahu alayhi wa sallam mbokk mi li ma lay jox farata la moo tax boo ci jotee jox ko beneen soppe ñu mën ko def ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa way jur yi na ngeen ko defal seen njaboot yi njaboot bu ko ci mën a defal sa bopp itam nangu ko def ndax diggante way jur ak njaboot ñaan bi direct la boobu amul xaar te way jur yi sumay xarit la loolu la yàlla dogal ndax dañoo fi oo tabaarakallaahu di fiddali seen cofeel ak seen ak seen kullëre loolu itam yàlla na yàlla fay leen yiw te bàyyi leen fi ba ci mën a fekke njëriñu njaboot gi ci barki yonent salaay sallam moo tax ginnaaw julli farata maanaam fajar eh, bu ñu salaatoo ba noppi nga def 41 fatihatul kitab maanaam alhamdulilahi rabil alamin arrahman rahim maliki yawmi din ba ci wala daalin amin nga sikkar ko 41 fois nga yéene ko sa njaboot incha allahu rabbul alamin njaboot googu du torox du alku te kenn du ko yërëm te ci ñiy dimbali ci lay bokk yéen ñi nga xam ne seen wayjur yi seen doom itam dañuy def bak defal leen ko incha allahu taala lu ngeen ci ñaan yàlla defal